ak yow man ma ne man ak moom maanaam man la ak nit koo xam ne dafa représenté presque tout ci man ci àdduna donc mu nekk nit koo xam ne tey maanaam ginnaaw yàlla si je suis Assane Ndiaye aujourd'hui ginnaaw yàlla moom moo tax et koo xam ne depuis bi ngay doon tout tànk ci waa euh, bu ñu la daan kasagal sax moom moo daan ñëw di la kasagal ci waa donc ba pare ma jël ci moom ay jikko yu am solo yoo xam ne maanaam mënuma koo expliquer maanaam xajul ci xajul ci ci ci wax nii donc mu bëggoon ko nag euh, delloo njukkal euh, maanaam delloo naa ko njukkal euh, njukkal loo xam ne maanaam lu ma tudd la maa ngi remercier de passage Birame Ndek Ndiaye mi nga xam ne moom jàppale na ma ci parole donc merci beaucoup Birame ensuite li nga xam ne nag moom laa ci wax yépp mooy li nga xam ne dama ko dund ak moom nekk lu ma jëli fële wala lu ma jëli fële non non parce que boobu euh, xam nga ndax yéen bu baax dama laa rusoon ba mënuma la a xool am ñu naan dama laa ragaloon ba ñemewuma la xool dëgg la cofeel bu ànd respect dafay doon mbëggeel foo mën a jaar dafay doon mbëggeel donc noonu la commencé donc après nag ba la ci topp nag après incha allah rabi di nga ko xam donc euh, nit la koo koo xam ne daal ku sori la ci man koo xam ne il fallait que ma defal ko nii moo tax ma def loolu quoi. lii mooy fi jamono toll maanaam ci biir maa ngi wax fi jamono toll ak ni ñuy dunde da ngay xas ku la gën da ngay tooñ ku la mën te bu ngeen jàkkaarloo doo ñemee sigi xool ko li ko waral mooy tooñ baaxul xas da baaxul nañu defar suñuy jikko. loolu ci benn loolu ci benn plan la déjà parce que fa am euh, maanaam su ma ko jëlee exemple ci man ku ma dëkkandool koo xam ne man ak moom ñoo xaleendoo ñoo màggandoo suñu waajur yi maanaam dañoo nekkoon ay xarit lool lool lool waaye jamono di dox ñuy màgg man man ak moom mais euh, maanaam côté moom euh, gën a baax man sama côté par exemple disons su ma ko jëlee noonu léegi yàlla sama borom dogal moom fexe na moom ba ay yaayam ni mu doon woowee sama yaay dootu ko woowee noonu papaam ni mu doon woowee sama papa dootu ko woowee noonu léegi moom sax ci boppam nga xam ne sama papa ak sama yaay ñu ko daan ñooñu daan may ay dërëm ak ñaari dërëm maanaam kooku faleetu leen donc te jamono ji dafa toll foo xam ne euh, nit ñi dañu jël trop am-am maanaam euh, def ko arme. di ko xeexe te loolu du àddina Sénégal dafa am lu ñu lu ñu yare woon parce que man bi may xale ñun dañ daan toog teg bool bu mag ñëpp ñëw sukk maanaam suñu yaay yi di demalante suñu rakk yi di demalante mais léegi waxuma sax nit ak nit mais dangay bokk ak nit ndey ak bàyyi sax soit ngay wax moom tey mu enregistré la wala euh, fu mu toog doo fa baax wala koo xam ne bon dafay wax ci yow lu négatif fu mu toog et pourtant malheureusement bu ngeen jàkkaarloo du ñemee wax loolu maanaam leneen lay wax donc loolu moo indi tur fi jamono toll voilà. ñu ñaari mos yu bees tàkk moo ci donc bii ñuy déglu nii dafa bokk ci les maanaam waaye sama doom ji moo ko bëgg loolu moom donc moo tax ñu déglu bii acca bismillah ama fi waaw Papa Sène noonu la kay. donc vous allez préciser ça. Ah, morceau bi ñuy waaj a déglu fait partie des exclusivités de l' album. tout composé de sept titres exclusifs yu bees tàkk. voilà maintenant dafa am deux bonus yoo ni comme man aussi un peu rétro. Ouais. et puis morceau bi me reprendre nii. ki ko way suñu papa la suñu kilifa la comme ni ma ko waxee sànq te ku ku ñu bëgg la ku sori suñu xol la même su fekkee nekkatu fi donc loolu ma torop album bi la bëgg naa ngeen déglu ko pour ñu jël après seen ay impression album c'était en fin parce que dama def album bi au mois de décembre 2019 après j'ai voyagé dem tourner bi ma ñëwee euh, laa def sama anniversaire au mois de février euh, 2020 au Grand Théâtre donc nekkuma fen maa ngi nag ci euh, paysage musical bi maa ngi joué tous les week maa ngi dem di tournée ji xam nga maa ngi def lépp loo xam ne rek maanaam maa ngi koy war a def donc c'est vrai que nag comme disent les autres ñu ne Assane Ndiaye dafa dafa ñemewul média wala du dem ci média lu bari maanaam nekk na loo xam ne déjà tàmmuma ko parce que benn euh, du du nag dara nag. man ma opté pour quand je dois faire quelque chose comme maa ngi ni tey di génne lu am solo lii ñu woo ñëpp ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan ma présenté leen ko ku am question posé ma ko ma tontu ko. donc album bi boo xoolee euh, premier titre bi premier titre bi c'est c'est c'est c'est une gamme orientale maanaam c'est un peu arabe un peu hindou tu donc c'est une gamme orientale. boo xam ne maanaam euh, woy bi ma ci woy moo laaj loolu mais tout le reste non dingeen ngeen ci ba kontaan di ngeen fecc ba kontaan macha allah. album bi morso boo ci déglu rek am na cofeel ci biir xam nga nag cofeel nag dafa bari façon cofeel dafa bari façon te façon cofeel yi am ci àddina maanaam ñu ñu koy dund lépp mu ngi ci biir album bi donc. cofeel mën na nekk yow ak nit mën na nekk yow ak loo am wala yow loo ak loo moom wala sa dëkkandoo wala yëpp lépp dafa boole maanaam al album bi moo moo boole tudd moom ci boppam cofeel maanaam turu cofeel foofu la jóge ba pare aussi cofeel tamit mu am kenn koo xam ne moom bi ma koy dégluloo yëf yi ma ko woon ko kaay déglu bi mu bi mu ñëwee ñëwee déglu après ci biir déglu bi mu déglu cofeel parce que kooku tamit dafa nekk nit koo xam ne euh, ci man dafa dafa dafa dafa fort ci man maanaam dañu dañu dañu yàgg lool te boobu temps dara du dara boobu temps tu vois yi xew nii yëpp xewul maanaam yàgg lool maanaam mu bëgg ma nag bëgg ma torop torop torop mësuma woowee sama tur maanaam papa rek la ñuy wax donc ñu seq loo xam ne man mënu ma ko may euh, alal mënu ma ko may dara li nga xam ne moom laa am muy sama baat bi ah man tamit ma jël ko daal ci jéem a génne loo xam ne cofeel la goo xam ne man maa ko dund man ak moom parce que moom mënu ma ko fay mënu ma fay ci lenn nag ci àddina parce que bu dee respect mu ngi fi cofeel mu ngi fi mbëggeel mu ngi fi te man ni ma ko bëggee moom nu ko raw la ma bëggee ak waa këram muy maa fii Clara donc donc boobu tamit jàll na c'est bon bi ci topp mooy thème moom thème yi moom daanaka pratiquement li ñuy dund actuellement ci société bi yëpp woy naa ko ci tu vois am na morceau bu tudd tànnal bala ngay juum àndandoo yomb na xarit moo jafe am na ci biir d'accorduma xale bu jigéen bi d'accorduma ñàkk ko mu tax a jaay sa ngor d'accorduma loolu aussi am na ci album bi donc maanaam daal lépp lu ñuy dund daal mu ngi ci album bi. Euh, boo ko dégloo yow wala kenn ko déglu dina xam à peu kan lay wax donc loolu mooy charme bi loolu moo tax ma ko ba mu jeex te tudduma ci tur mais yow la ak man waaw. Ah. la ak moom man man la ak moom waaw <laughs> maanaam you euh, and mi wala me and waaw ah, ah, ah. man la daal ak moom léegi ku ko déglu di nga xam réellement loolu moom amul sax ma dem mag ma dikk boo ko dégloo benn yoon rek di nga xam ne Assane Ndiaye kii lay waxal donc par rapport ak euh, ki génn léegi ak question yi man je crois que euh, nekk ci internet bon warul tax euh, nga mën a def lu négatif pourtant woyoon naa fi benn morso bu tudd taskatu xibaar parce que maa ngi ciy wax naan yow taskatu xibaar bi Euh, métier bu noble nga yor ku siiw yaa ko siiwal waaye ku yàqu yaa ko yàq donc d'accorduma nekk du métier bu noble mais métier bu noble la seulement kañ dañoo war a gën a def attention maanaam parce que am na loo xam ne même bu fekkee ne yow sax dëgg la boo ko génnee di nga tas kër wala di nga tas sëy wala di di nga parce que internet bi léegi loo fi dugal fii ak cent ans say sët sët sëtër ci sax dañ koy xam donc nga nga nga bañ loolu nga ne ah non lii su ma ko génnee dina topp kii giiru dundam topp ak njabootam rien que même budul sax moom mais ak njabootam nga jéem leen a euh, épargner tuuti ci ci yenn yi quoi donc loolu moo tax euh, loolu quoi. muy euh, suba mardi 16 mai allah. Ah. ak yi xew ci dëkk bi yëpp comme ni mu ko laajee. Mm-hmm. bàyyi nañ ci xel bu baax on est très conscient de cela. Mm-hmm. mais ñun dañuy liggéey. en te defe naa ne kenn ku ne mi ngi ci liggéeyam dëkk bi li fi xew du ma ne suñu yoon nekku ci du pour wane ni suñu yoon newu ci mais pour wane ni kenn ku ne ci li nga war a nekk nekk ci malgré lépp lu mën a doon parce que li fi indi tension bi ñun ñëpp bu ñu bàyyee suñu liggéey concentré wu ci loolu du ñu tax a suñu compte dara du ñu tax a yóbbu dépense suñu kër donc ku ci am looy liggéey da koy liggéey parce que ci bés bu mel ni bésu suba bi incha allah nga xam ni situation dëkk gis nañ ko ku ci war a takk suba daañu la takk incha ku ci juddu woon semaine dinañ la ngénte kon kenn ku ne li nga war def di ko def. ku ci faatu dinañ la suul. ku ci faatu it dinañ la rob incha allah. waaw war a juddu dinañ juddu kon suñu vrai que aujourd'hui man ak Clara dafa am loo xam ne moo am sama diggante man ak moom donc ak ni ñu mel te aussi mu nekk une femme brave ma gis li muy liggéey. ci wàllu culture euh, presque ci wetu lépp xam nga jàpp ci cinéma bi ma ne kii daal il faut ma indi ko ci culture bi mu ñëw nag daal di génne album nag léegi loolu loolu moom a gën a poussé sax choix bi ma def ci moom pour maanaam comme moom ci culture bi mu ngi ciy bay waaram bu baax euh, sur la scène nationale ak euh, internationale yëpp may nag léegi dama koy dugal nag léegi nag ci mbalax mi nag bu ko defee nag mu moom tamit mu dugg soos bi. donc Rafroth maison de production audiovisuelle la donc quand on dit audiovisuel mooy lépp lu ñuy dégg ak lu ñuy gis donc euh, dinañ def ay production musicale génne woon nañ fi benn single euh, yàggul dara mais on n'était pas trop à fond dedans maintenant gis nañ ne jot na parce que am nañ euh, plus value valeur ajoutée bu mel ni Assane Ndiaye tey je pense que. yo la ñu jaar ci moom pour lancer suñu production musicale parce que Rafro day produire artistes yëpp day produire acteur bi day produire chanteur bi day produire musicien donc euh, liggéey ak Assane Ndiaye plaisir la si ñun te collaboration boobu je pense que su ci yàlla àndee dañoo gëm ni day nekk réussite. incha allah comme li nga wax Assane Ndiaye bëri wut ci réseau yi donc euh, on peut dire que ce n'est pas un artiste à scandale Rafport Sénégal aussi seen politique de travail. mooy toog di liggéey dans le silence togg mbir ba mu ñor ñëpp jotandoo ci te en général travail de qualité lay nekk pour ne pas jeter suñu bopp ay fleurs donc defe naa bu ñu collaborer ak artiste boo xam ne ci mindset boobu la nekk nekkul ci bruit day toog liggéey li mu war a liggéey ba mu jot mu génne ko buñ ci àndee am nañ ci yaakaar ak yéen ngeen jàppale ñu mu nekk loo xam ne réussite lay doon. ban stratégie lañu jël pour mën a jaay suñu album mm. tout en sachant que jamono ji jaay album musical yombul. Mm. donc ma bëgg la wax rek su ma rebondiree si si lu ñu suñu grand frère euh, Pape Signan wax mm. Assane Ndiaye jafewul jaay en fait defe naa tollatuñu sax fu ñuy jaayee album bi parce que ay yeneen ak yeneen album jaar na mm. te yeneen ak yeneen a ngi ñëw mm. donc Assane Ndiaye ñun jamono ji suñu défi moo ñu jaay ko jeunesse bi parce que bu dee public bu Assane am nañ ko ba pare Assane il a son public continuer juste li Pape si doon wax am na ñi nga xam ne ña nga doon baal Assane Ndiaye autant ñu koy baal ba tey ñu ngi koy déglu ba tey c' est que album génn na produit génn na de Assane dañ koy jël man bu ma ñëwee ñun rapport loolu nekk du suñu défi parce que mm-hmm. Assane am na loolu ba pare mm-hmm. ñun jeunesse bi dañoo am artiste bu mel ni Assane Ndiaye boo xam ne parolier la muy wax ay paroles yoo xamante ne ñun mën nañ ci jëlee njariñ mm-hmm. man jeunesse bi laay jaay Assane Ndiaye pas génération bi nga xam ne xam nañ Assane te dañuy consommer Assane ah. loolu mooy suñu défi ma bëgg yéen ñi nga xam ne yéenay presse culturelle bi ngeen jàppale ñu ci loolu ah macha allah li ma la mën a wax ci loolu mooy c'est-à-dire euh, bi mooy suñu premier album bu rapport génnee ko jaay mais ci jeunesse bi ngay wax signé nañu déjà ak ay jeunes artistes yu nekk fii Sénégal yu ngeen xam d'ailleurs mais loolu ñoragul mënagul génn moo tax mënaguma ci wax mais ñi ngi liggéey ak ay jeunes artistes yu am talent yoo xam ni style musical bi ñuy def am na yu wute sax ak mbalax donc ñun amuñu xàjj ak seen c'est-à-dire mag moo xam ni mën na jëriñ jeunesse bi ñun ñuy liggéey ak yow bien vrai que équipe bu jeune lañ te vraiment jeunesse bi moo ñu gën a ñor parce que jeunesse mooy avenir mais mag moo xam ne mën nañ jël ci yow lu dimbali jeunesse bi damay dellu si waat ci paroles yi ak message bi muy jàllale ba tey c'est hyper important pour man déjà avant sax pour sama structure wala avant rafetlu ak ñeneen ak ñeneen man c'est hyper important su may déglu musique man dama bëgg musique mélomane laa laaj nga ko dama lay jox réponse bi je suis très musique dama bëgg musique. mais musique boo xam ni mënuma ci jàng dara dama koy tayal a déglu man noonu lay noonu lay dégloo musique soo gisee ma ne la Thione Seck dama ko bëgg sama waykat la ça explique tout ay parole Thione Seck lépp lu ma mës a way boo ma ko naa la ko décortiquer hmm. parce que damay gëstu dafa ma doon jaral lu ma comprendre lu damay gën sama téléphone woo ko hmm. tellement dafay pousser sama réflexion fu sori hmm. dafay yokk sama vision man dama bëgg loolu trop ci musique bien vrai que j'écoute du tout nag lépp lay déglu parce que bëgg naa musique mm. mais gën naa préféré musique bi may jàngal dara mm. parce que man musique bokk na di déglu yenn paroles yi lu ma forgé ba ma agsi fii tey